chers internet Thiès Info Thiès TV ñu ngi leen di nuyu di leen di amati mbégte ñëw ak yéen rek ci seen émission bu am solo tey nag ñuy ngi fii ci parcelle daal di seet rek ki nga xamante ne moo di Zo Mansour ñu seet ko moo ki nga xam ne mooy fondateur Kajoor Batik tey nag ñu am mbégte seet si ko wax fas yéene waxtaan ak moom ci liggéey bu am solo bii muy def gis ngeen ne suñu ginnaaw batik yaa ngi nii mu nekk ay cub yu am solo macha allah lépp rek moo koy liggéey créer propre entreprise am nekk tamit en même temps formateur ci batik bi armée fii au niveau Sénégal ak international mu nekk lu am solo waaye bala ñoo dugg ci li nga xamante ne moo di liggéey bi rek dañuy nuyu Zo Zo ñu lay ziar. maa leen di fay maa ngi leen di fay waa Thiès Info euh, di kontaan toujours si yéen euh, samay partenaire numéro un euh, ba ñu tàmbalee ba léegi fu ñu nekk Thiès Info fekk ñu fa. sëy du ñu jàppale bu baax si liggéey bi damay wax ne tey bu ñu egsee fii sax moom bokk na si waaw parce que dara xewul la nekk ànd ak ñun ba léegi ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm équipe bi fi ñëw tey Euh, di leen remercier bu baax a baax. ayca Jo ñu lay jaajëfal bu baax a baax Jo nga créé li nga xamante ne moo di Kajoor Batik Jo depuis kañ nga commencé ci liggéey bi. waa man dama am chance euh, juddu rek dugg si biir aar bi. waaw au début euh, si tableau yi laa nekkoon euh, mais finalement je me suis retrouvé dans la mode suma ma ne mode mooy tissu bi suma ma ne tissu bi mooy batik bi batik cuub euh, la cuub boo xam ni da ngay jël tissu bu weex transformé ko avec de couleurs avec des formes avec des designs pour mun si créer habillement waaw donc loolu mooy batik donc bi ñu si duggee yàgg na trop depuis bu ma amee fukki at wala juróom-ñeenti at ba léegi maa koy def macha allah. yàlla dimbale ñu su aussi tey euh, am na ñu bëri ñoo xam ne jàngal nañ leen si parce que métier boo ko mënee te jàngale woo ko amul sens. mais yow ci tableau nga commencé woon est-ce que bi ngay wëlbatiku ci li nga xam ne moo di tissu bi amoo woon ay tuuti jafe-jafe. au contraire au contraire euh, boo démarré si peinture ñëw si batik loolu chance bu bëri la parce que la peinture c'est beaucoup de couleurs différentes avec des formes donc loolu xëy na sax moo yombal sama intégration si biir batik bi. parce que peinture moom mooy da def ay dessin di peinture batik aussi da ngay def ay dessin di cuub donc sorantewuñu sax boo xoolee donc lépp rek ay jeu de couleur la ay jeu de forme la donc yàlla dimbale nañ si yàgg nañ si trop macha allah. ah depuis moom waaye depuis ma amee 9 ans laa ko commencé pratiquer di ko foowee mais dama dem ba benn jamono ma xam ni lii dootul affaire de passion. liggéey la boo xam ni da nga ko war a da ko war a exploiter transformer ko et puis euh, promouvoir métier bi quoi. parce que bi ma si defee ay recherche j'ai vu que ni batik c'est un produit africain ñu bëri xam ñu ni sax c'est un produit africain dañ yaakaar ni tubaab yee ko moom mais batik. Ah, parce que tubaab yi dañ ko bëgg aussi. waaw xam nga batik tubaab yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko si ñun transformé ko dem indi vax mais le vax c'est pas africain. ok vax originam c'est Hollande mais hollandais yi ñëw ñëw Afrique jël suñu batik yóbbu ko transformé ko industriellement créer ko def ko vax. vax boo déggee tur bi moom mooy sondeel mooy sondeel bi li matière bi weex bi ñuy defaree sondeel moo tudd cire cire boobu en anglais moom la wax vax. ok mais lii xam-xam la de. waaw xam-xam la boo xam ni africain sax xamuñu ko. africain yëpp dañu yaakaar ni vax c'est africain alors que l'Afrique batik mooy origine am. waaw donc batik moo jur xeetu tissu yi ngay gis Afrique yëpp si batik la déparé. waaw kon africain yi nan la ñu retrouver wu ba jël vaccin mu nekk suñu tenue ba tax na sax même ñoom tubaab bi tey bu ñuy wonee africain euh, da ngay gis tissu vaccin bi ndax ak gis nga am na benn coupe du monde bu fi xewoon dañoo jëloon euh, africain yi participer woon mm-hmm. seen maillot yi ñu dugal ci vaccin pour wane ne ay africain lañ. dañuy nax rek tubaab bi dañuy nax mm-hmm. parce que si loolu la ñu naxee ba gëmloo ni ñun vaccin ñoo ko moom mm-hmm. alors que moom ñu ko mais ñoom xam nañu l'origine des tissus africains batik na moo jur xeetu tissu yi ngay gis yëpp bogolan wooding xam nga tissu africain yi ngay gis yëpp en Afrique mi ngi bàyyi ko si batik parce que batik Égypte la déparé Égypte mooy dëkk bi nga xam ni foofu la batik bi jugee. mu jugee Égypte dem Indonésie Indonésiens yi nag ñoom ñoo ko exploité. tu vois hollandais yi ñëw Indonésie jël ko foofu transformé ko industriellement indil ñu vax. léegi ñoom ñoo koy defar ñun africains yi ñu koy jël di ko sol alors que ñun mënoon nañoo defar batik bi di ko consommer sans autant ñu koy jéggaani. waaw mais tey jii nii boo xoolee. Euh, alhamdulilah parce que man tey joué naa si rôle bu bëri boo xoolee dans la sous-région tey suñu demee ba am découverte bu bëri si batik euh, dama si participer parce que comme souvent damay dem Burkina Mali Côte d'Ivoire Gambie di fa def ay atelier de formation. donc tey mi ngi développé te ba leen dëkk mel ni Burkina tey li ñuy liggéey si batik kenn xamul nu mu toll te population bi ñoo koy consommé Côte d'Ivoire aussi la même chose tey ñu ngi fay liggéey lu bëri si wàllu batik te consommation bi population bi ñoo koy def donc Sénégal moo des suñu population di consommer lu ñuy liggéey fii donc man si combat boobu laa nekk te yàlla ñu suy dimbale c'était pas évident mais tey boo xoolee si réseaux sociaux yi boo xoolee si défilé de mode yi boo xoolee si yenn affaires yi di nga gis ni ñu commencé di delluwaat si batik bi donc loolu moo tax ren ma ma ma tuddee suma événement bi la renaissance du batik africain. noonu nga ko tuddee. waaw loolu mooy thème mu ren bi parce que il faut ñu ñu mettre ko en valeur il faut nit ñi xam ne batik l'origine elle est africaine ñun ñoo ko moom te dañ ko war a exploiter dañ ko war a consommer. waaw wala ñoo ñëw ci loolu ñu gis ne da ngay former ay ndaw est-ce que li ngay am ci ay élèves dina bëri. na yow nan nga koy nan nga koy préparer comme dañuy inscrit di fay par chaque fin du mois wala. non pour l'instant amuñu école parce que man euh, c'est vrai que bëggoon nañ ko def mais man dama nekk nit ki nga xam ne duma toog benn place donc chaque deux mois dinaa bouger bon à travers le Sénégal mais à travers l'Afrique aussi parce que macha allah xëy na ñi may dañoo bari mais tey formé nañu ay doomu adama yu bari parce que tey suma xayma Sénégal euh, en 98 lañ commencé def formation boo xam ne vraiment c'est très professionnel mooy jël nit ñi tàggat leen ba xam suñu paree ñoom dinañ dem liggéeyi ci depuis quatre donc depuis deux mille cinq wala deux mille six laa commencé di tàggat doomu africain yi tey am na liggéey bu bëri boo xam ne. quatre-vingt-dix-huit donc ñan nga doon tàggat. Euh, à partir de quatre-vingt-dix euh, lañ commencé tàggat waa Sénégal si wàllu formation en batik à partir de deux mille cinq deux mille six lañ commencé di tàggat. sous région bi si laa commencé génn si sous région bi dem di leen tàggat donc ça veut dire que ni mi ngi bëgg yàgg donc loolu ñu leen tàggat noonu tey jii nii résultat bi mi ngi feeñ au Burkina mi ngi feeñ en Côte d'Ivoire mi ngi si feeñ si yeneen dëkk. parce que tamit nekkul ni dangay tàggat nit ki tey suba nga gis résultat bi parce que il faut moom tamit mu mu liggéey pendant des années pour mun a am maîtrise technique yi ba mun a commencé moom aussi liggéey di jaay. waaw. Mhm. ngay waajal événement bu mag fële ca Ndakaaru ñu bëggoon rek nga wax ñu waral événement bi yaa ngi koy waajalee fële rek muy exposition bi ngay amal Ndakaaru exposition en batik à la galerie nationale lan moo waral nga bëgg a def exposition boobu. waaw xam nga boo nekkee si benn matière di ko liggéey pendant des années c'est vrai que def nañ ci ay défilé de mode yu bëri pour présenter le produit euh, léegi na euh, dafa jot. parce que ma Dakar laa dëkk fa judo juddoo fa laa màggee xëy na liggéey bi moo ñu indi Thiès pour plus d' espace bu ñu soxla woon xam nga parce que Ndakaaru amul espace euh, moo ñu indi Thiès bon bi ñu ñëwee cees aussi am na lu bëri lu fi xew parce que tax na ñu jël liggéey bi dugal ko au sein des manufactures des arts décoratifs bu Thiès tey boo fa demee di nga fa fekk batik te Zo Mansour moo fo dugal waaw un projet bi nga xam ne waxtaanoon naa ñoom bu yàgg yàlla def après mu sotti. Euh, ba tey jii nii am na fukki xale ak juróom quinze jeunes yoo xam ni embauché nañ leen au sein des manufactures à cause du batik. yaa leen formé maa leen formé pendant deux ans. waaw amoon ay partenaires yi leen jàppale ba ñu mën leen téye foofu pendant deux ans donc yooyu yëpp su amee na léegi nag ñu ne des na léegi ñu ñu ñu ñu ñu promouvoir encore le produit par des expositions par des vernissages parce que def défilé de mode xëy na dina am ñu ko xool mais day des ñu ne léegi nañ dem defi benn exposition à la galerie nationale. présenter le produit. lépp lu ñu mën a def si batik ñu présenter ko parce que du yére rek lañ ci def ah. Mhm. mën na ci def sac mën na ci def dàll pochette n'importe quoi. batik dafa yaatu. Mhm. nekkul nii da nga koy liggéey rek yére nga si war a sol. Mhm. donc ñun bës boobu dinañ si présenter xeetu euh, produit yi ñu si mën a liggéey yëpp. mais c'est l'occasion aussi euh, de de de remercier et de et d'honorer aussi des personnes yi nga xam ne vraiment bi ñu nekkee si métti métti ñoom dañu jàppale woon. parce que am na jamono boo xam ne on avait pas de moyen affaire yi métti na am na ay nit ñi nekkoon suñu wet euh, je peux citer ku mel ni Massamba Gueye docteur Massamba Gueye euh, ku mel ni Kalidou Kassé ku mel ni ku ñu wax Siré Cissé nekk direction des arts ku nekk Fatima Fall nekk CRDS bu Saint-Louis centre de documentation et de recherche bu Saint-Louis euh, ñooñu dañ ñu appuyer si liggéey bi parce que liggéey aussi boo si nekkee il faut mu am ñu nekk sa ginnaaw di la jàppale pour ngay am courage ngay am doole ngay di am toujours Euh, bëgg-bëgg bi ngay def si liggéey bi waaw ñoom vraiment ñu seen fay donc jour boobu aussi c'est l'occasion de les rendre hommage mais également aussi dinañu dinañu nominer euh, des personnes yi nga xam ne si wàllu batik bi en deux mille vingt trois nañ si trop trop trop parce que jigéen yi ñu former au niveau du Sénégal il faut ñu encourager leen. donc tànn nañu ay jigéen lu mat ñeenti jigéen am na ku war a jógee Cabrousse Saint-Louis Thiès ak beneen dëkk waa Cabrousse dem nañ fa def formation. donc ñooñu dañ leen war a ay prix pour wan leen ni gis nañu li ngeen def si 2023 bi. ci say moyens la. waaw lépp suñu moyen bopp la ñuy demee pour l'instant parce que comme ni ñu koy waxee rek euh, loolu la ñuy jooy ñun ñëpp artistes yëpp Sénégal du ñu accompagner souvent la culture et c'est dommage euh, man en tant que sénégalais su ma fi génnee dem bitim réew su ñu amee ay événements dañuy jàppale mais souvent au Sénégal c'est ça qui pose problème. suñu autorités yi du ñu jàppale les artistes alors que ñun lu ñuy def ni tey euh, xale yi waroon voyager ci gaal yi ñu bari ñun sauvé nañ leen. parce que former naa ay xale Saint-Louis formé naa ay xale quelque part yoo xam ni suñu awuloon formation kon xëy na heure bi ñu ngi ci gaal bi parce que formation bi day àndaaleeg tamit euh, sensibilisation. ñëw ñu rek pour former mais c'est des moments yi nga xam ni bu ñu nekkee jeunes yi dinañ leen sensibiliser euh, par rapport ak voyage yooyu xale yi di def léegi pousse leen ba ñu gëm seen bopp mën a toog seen réew. parce que ñun xëy na tey ñun mënoon ñu génne dem toog bitim réew toog fa di liggéey tranquillement suñu liggéey mais on s'est sacrifié parce que am na suñu ay morom yoo xam ne dañ fi bàyyi liggéey bi dem mais ñun ñu toog nekk ay xale pendant des années tey boo estimé de quatre-vingt-dix-huit à deux mille vingt-trois même bu dee chaque année nga formé cinquante xale boo ko comptabiliser ça fait beaucoup de jeunes te loolu d'ici peu dina feeñ a ngi liggéey. donc man sama démarche loolu la quoi ñun du ma wax man sax ñun waa Kajoor Batik suñu démarche mooy naka la ñu mën a def ba sauver xale yi. Kajoor Batik équipe bi yaatu waa Kajoor Batik équipe bu yaatu la parce que boo xoolee Kajoor Batik yow tey bu ñu la formé woon automatiquement da ngay bokk Kajoor Batik su ñuy def dara ñun ñëpp a koy waxtaanee di joxante xalaat xam nga yow boo amee benn xalaat nga apporter ko ñu wax si waxtaan si ñu xool yow sa liggéey naka lañ lay accompagner parce que duñ la formé ba pare bàyyi la. donc bu ñu la intégré Kajoor Batik moo ñuy permettre tey soo nekkee di liggéey soo amee ay tolof tolof ñu xool naka la ñuy résoudre problème yooyu moo tax képp ku ñu formé rek dañuy fexe ba nga nekk biir Kajoor Batik du ñëpp na waa ayca Zo euh, pour ñu terminer émission bi rek parce que temps bi mi ngi waaj a jeex léegi yow bis ba lan nga bëgg carrément ak ñan nga ci woo ñoo xam ne xam nga ne ñi boo leen euh, tàllalee mais dina ñëw accompagner nag parce que li ngay def dafa am solo sànq maa ngi bëggoon cité ku mel ni Kalidou Kassé far nga tudd ko maa ngi bëggoon wax est-ce que am nga relation ak comme genre artistes yooyu nga xam ne tey jii àdduna bi ñëpp ñoo leen xam. waaw ñun Kalidou ak ñi ma cité ñooñu ñooñu suñu ay mag lañu ñooñu. Euh, du ñu partenaire du ñu dara mais suñu famille la ñu bokk. parce que ba ñu nekkalee dara comme ni ma la ko waxee la ñu commencé di jëflanteeg ñoom si wàllu liggéey suñu xewlee suñ leen wooyee dañuy déplacé wu ñëw jàpp si mais c'est l'occasion euh, ñuy wax ni euh, événement boobu population bi yëpp lañ si woo surtout na les autorités parce que tey boo demee Burkina autorité yi ñooy promouvoir le produit local. ba seen président da ngay gis muy sol li nga xam ni benn artisan bu ndaw moo koy defar mais ñun pourquoi pas ñun suñu autorité yi souvent pour ñu solu li nga xam ni produit local la c'est un problème ñun nag ñu ngi siy bàyyi suñu waar c'est l'occasion may remercier Maodo Malick mbay parce que moom euh, depuis longtemps mi ñuy accompagner di sol suñu produit di ko promouvoir donc moom aussi si bés boobu ñu ngi ko xëy xaar parce que mënuñu ko bañ a tudd parce que ku la defal lu baax aussi il faut nga tudd ko. Euh, di woo waa Thiès yëpp na parce que ñun lu ñu am Thiès lañ ko amee euh, yàgg nañ fii lu ñu def waa Thiès ñëw kon donc aussi dañuy woo waa en tout cas c'est c'est un jour spécial parce que cette exposition je dirais que c'est une première en Afrique je dirais que même c'est une première dans le monde une exposition 100% batik c'est une première donc muy bésu Sénégal muy bésu Afrique mais également muy bésu waa Thiès aussi waaye parce que man léegi Thiès laa dëkk waaw waaw doomu Thiès laa. waa kontaan nañu ci loolu nga ne thème bi nan fàttali ñu thème bi. thème ñu ngi ko tuddee la renaissance du batik. waaw su ma koy firi tey si olof mooy loo xam ne tey jii dafa mel ni woon dafa dem exister xaw nelaw ñu war ko dexilaat. Mhm. waaw donc du batik donc tey batik baa ngi deexaliku parce que tey ñu bëri ñu ngi siy bay seen waar. donc ñun na am nañ ci wàll bu bëri parce que ñun ñoo si nekk di liggéey di si former ay nit kon duñ si xaar kenn mu ñëw dekkil ñu ko ñun ñoo ko war a dekkil. est-ce que mën nga bi. c'est le trente décembre. 30 décembre. c'est un samedi l'après-midi à partir de 16h euh, ñun ñëpp ñu daje foofu ñëw xool waa Kajoor Batik lu ñu def ñëw xool aussi Zo Mansour pendant des années lan la liggéey à travers le Batik. waaw donc euh, c'est l'occasion de remercier tout le monde mais également comme ni ma ko waxee si tàmbale ba sëy dañ koy remercier di ko gërëm parce que c'est pas évident nit nekk ak yow ànd ak yow ànd bi yàgg bëri na ñoo xam ne boo àndeek ñoom bu yàggee mu dagg mais moom Thiès info ba dara nekkulee dara man si laa commencé nekk ak moom ba tey jii nii kon ñun dañ ko fi xaar moom mu xaar ñu ba lépp daje moo tax lu ñu xewle kenn du ko si jiitu waaw ñu ngi koy remercier di remercier waa Thiès di remercier sumay may mbokk su xarit di remercier waa Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire léegi mooy suma ñaareelu dëkk ñoom it lu ma def ñu bàyyi seen yitte jëw jàpp si su ma wàccee Côte d'Ivoire aussi c'est la même chose su ma ñoom ñëppay ñëw donc ñu ngi remercier waa Côte d'Ivoire bu bëri euh, surtout ma famille Seck qui est là-bas en Côte d'Ivoire euh, su ma wàccee Côte d'Ivoire ñoo may dalal ñoo may ñoo may ñoo may héberger ñu nekk suma ay mbokk yu baax aw ma seen fay yàlla la yàlla fay ak képp ki nga xam ne rek yaa ngi Côte d'Ivoire nekk sama mbokk Euh, su ma fa demee daal du ma wéet donc foofu mooy su ma su génnoon tey Sénégal man foofu laay dem ñibbi quoi waaw donc maa ngi leen di gërëm di leen sant. soxla nañ la doo génn. waaw soxla nañu mais xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni fonk ñu seen doom. Mm, dañuy xaar ba seen doom dem beneen réew ñu doog daw si ginnaawam di ko topp. à travers Thiès Info incha allah <laughs> sénégalais yi dinañ la gën a téye bu soobee yàlla Aïcha Zo mu nekkoon na lu am solo ñu lay jaajëfal vraiment ci disponibilité bi wax dëgg yàlla tamit kàddu yi leer na gis ngeen ne moom moo créé li nga xam ne moo di Kajoor Batik te dafa mel ni sax dafa dello waa Thiès njukkal nag ndax boo nee Kajoor sa xel dafay daal di dem lii di Thiès kaay benn dëkk ñaari gaal ñu ko ciy jaajëfal bu baax a baax dégg ngeen bis bi exposé lay amal fële ca galerie nationale bu Dakar xam ne rek eh, mën nga koo ñoo jàppale ngay autorité ci dëkk bi ndax wax na dëgg nag dañoo war a dekkal li nga xamante ne suñu ay produits locaux la bu ko defee Sénégal daal di jëm kanam ñu koy jaajëfal bu baax a baax bis bi naka nekk le 30 décembre incha allah bu ko kenn wute na fa ñëpp teew ñu koy jaajëfal vraiment gis ngeen ci batik bi laa sañ seen man daal di def ba mu baax ñu koy jaajëfal macha allah li muy defar rafet na aare na te it tubaabe na rafet na comme ñun moom lu ñu ne tubaabe na na la nekk lu rafet kon na ñu ko ciy jaajëfal bu baax a baax di nuyu kanasatu la coréenne moo nekkoon ci caméra bi la le DG Seylatir ñu koy jaajëfal bu baax a baax madame Diouf la directrice ak équipe technique bu Thiès Info yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Zo ñu lay remercier vraiment. waaw man merci beaucoup d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme.